alxaaji Mbéngue Diop ak Mame Ndokh TV maa ngi fii ci xadara Cheikh Seydil Hadji Malick senegal Sénégal mbokki àddina Abdou Aziz Mbaye sët ci góor gi Moussa Alla Mbaye alxaaj dut kenn doomu góor gi alxaaji Mbaye doon de tabaarakallaahu ñoo ngi nii di dox ci ndigali Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour yàlla na fi yàgg te wér am téeméeri at ak ñaar fuk ci barke alxuraan yéen ñi nekk Amérique nekk États-Unis nekk France nekk Asie li ngeen ma doon laaj gi nii Abdou Aziz Mbaye alxaaj dut kenn nii adduna bépp leen bëgg taalibe Seydi Hadji Malick yëpp leen bëgg ni ngeen di def adduna bi kontaan nañ ci réew mi kontaan nañ yàlla ngeen tee am téeméeri at ci barke yonent bi alxaaji Mbéngue Diop ak Mame Ndokh TV la leen waxoon li ma leen di woon fii ci Ndokh TV du ngeen ko gis 2S du ngeen ko gis TFM du ngeen ko gis ci benn télé bu dul Mame Ndokh alxaaji Mbéngue Diop ak Mame Ndokh TV alxaaji kenn ngi noonu ak alxaaji Abdou Aziz Mbaye li ngeen leen ko tey mu ngi noon alxaaji Mbéngue Diop ak Mame Ndokh TV jërë ngeen Baye Abdou Aziz sama xarit sama idol maa ngi lay ziar li Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour def fii ci xadara bi ak mu baaxee Euh, Abdoul Aziz bi ma lay xalaat bëggoon naa ci am sa réaction dajale famille Sidi Hadj Malick gépp ñu dajaloo fii tey ci xadara bi di buur loo ci xalaat. mooy objectif. muy mhm. topp ku nekk. Mhm. li mu def noonu. Mhm. ci matérialiser unité. dafay tax lu bari yomb. dama sëñ Moustapha Sy Al Amine ci taxawaayam. Mm. ci personnalité. Mm. mais ci dëggoom. Mm. ak gëm mooy moo tax sëñ bi takk. du ko defal lii. est-ce que wala kon ab daal gis ak gis nga loolu. atum yàlla. fukki at yi ci kanam yëpp ca Zewir ca jàkk maam Seydi Hadji Malick hmm. wéttu sëriñ bi hmm. ni sëñ Maodo si ñëw fii wéttu sëñ Abdoulaye Al Amin hmm. boobu mun la ñëw mu yabal sëñ sëñ Babacar si am gis nga loolu mu toogoon def matérialisé cest à dynamique bi mu enclenché. loolu la ko tubaab di wax bi mu door. lii moo koy sottal. allahu akbar. wala dimension boobu. wallaahi wala dimension boobu. parce que rapprochement bi foog nit def kon lii continuité la. comme jàngat la boo xam ne dafa amoon ku teg benn jéeg. Mhm. moom ñëw teg beneen jéeg. jëm fan jëm ci kër gi nekk benn. wallaahi àndal wallaahi jëm fan. liggéeyil maam moo. wallaahi jëm fan. doxee ba jumaa ji 1904 mu bu toll nii mu toll ñu àggale ko bu ku ni est que ci Tiwaawan yàlla amiin yaa rabbal aalamiin Mbaye jërëjëf jërëjëf Mbaye jërëjëf euh, alxaj Diop si dégg nga li ma laaj sànq Abdoul Aziz mooy euh, benn bi nga xamante ni moom la Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour def ci dajale xadara bi yëpp ci benn ci benn ci ci benn bërëb ñuy def li nga xamante ni mooy burdu ban réaction nga ciy def sant yàlla aa lu rafet lu ko defee xadara bi wallaahi bi nga xam ne moom di di wéyandoo guddi. Mhm. loolu dañ ciy sant yàlla. wallaahi li nga xam ne xalifa bi am na mhm. mhm. xalaat. yi nangu. ko defee comme ni ko bëgg. na xam ne sereen am na lu ñu jaayee lépp ànd ak ñëpp wallaahi laas amul kenn ku amul benn tijaan boo xam ne dina tiim groupe yi ñu àndandoo di buur da sa xol di seet. wallaahi ñun ñëpp kenn ku ci nekk. am naa wax ne dañ naan tijaan dafa féex. bu deewee dem àjjana. groupe allahu akbar jërëjëf. jërëjëf Diop jërëjëf Diop jërëjëf. surtout góor gi Babacar Diop njaxeer baa ngi noonu samaam daan loon ak Cheikh Seydou Aboubacar si ba bu ne tëll ñëpp defaru mu leen defar leen ndànk ponkal mi ñëwagul damaa xaw a nuróog moom rek barke alxuraan samaam góor gi Babacar Diop njaxeer bi muy ñëw xaafisu alxuraan dafa indaale waaye bi mu gisee Cheikh Seydou Aboubacar si dafa yëlab bopp bi ne ah kama sama nday ji seen bu mbay doon wax a ngi nii borom bonekaar bi borom sakkar yàlla bi du ko jekkal ko sengal barke alxuraan ku wóolu sa bopp ba dajeeg moom wàcc tere boo yoroon di nga ko tëjaat topp ko moom bu Seydou Aboubacar si ah Diop bu dix mille amoon jom fu mu di seen ndaw ndax foo mu fekk jox ma cërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi noonu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV loolu lañ leen di wan ci ginnaaw alxaaji Pape Malick Mbaye ànd ak alxaaj dut kenn tabaarakallaahu mag ñi fa ñu tëdd seen xol yi sedd na alxaaj dut kenn a ngi noonu nag tabaarakallaahu yore burdu bi di waajal li nga xamante ne di xaar Abdoul Aziz Mbaye tabaarakallaahu ngir ñu commencé li nga xamante ne mooy burdu di xaar sëñ Mouhamadul Moustapha si Ibrahima Mbaye ngi noonu sama xarit bi sëtu Moussa Ale Mbaye bi tabaarakallaahu mu ngi noonu di sama xarit ñu yàgg lool tabaarakallaahu di nit ku baax yàlla yàlla guddal fanam xaj Moustapha ngi noonu ndeysaan grand bu yaroo ngi nii grand bu baax grand bu bëgg Seydi Xaj Malick waaye nag Chérif Mbaye ngi noonu papanaar sama xarit bi alxaj daaw góor a ngi noonu waa Kër Moussa Allé Mbaye yaa ngi noonu tabarakallahu di ñëw ñëw bu mucc ayib la ñuy ñëw fii ci Burdu bi tey tabarakallah ci ndigali Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour Sidi Ahmad Mbaye ngi noonu tabarakallahu di doom ci alxaj daaw a ngi noonu di jàmbaari fëkk tëdd tabarakallahu daal bi Sidi Aj Mali yëpp ko mu ngi noonu di sant sama benn jigéen boo xamante tabarakallahu gis naa yóbbante bi tabarakallahu lu ne la yëpp toppandoo tabarakallah li nga def am na solo waaye nag Baye Allé ngi noonu doom Yàlla ma jigéen jaa noonu tabarkalla baayam danaan indi fukki nag fukki xar tabarkalla ba sëñ Babacar ni bu ko kenn waxati alima jigéen deen ko waaye alima góor jërëjëf Njaay si taxawaay ci xadara bi rafet na tabarkallahu mi ngi noonu mbokk yi taalibi Seydi Hadji Malick yaa ngi noonu alxaaji bi ngi jëm ak Mame Ndokh damay bëgg di leen wan li nga xamante ni télévision yi duñu leen ko wan ngeen ànd ak man ta baal ma ak alxaaji bi ngi jëm ak Mame Ndokh